suñu lépp ñu liggéeyal ko sëriñ bi liggéeyal ko sëriñ bi salaatu lazi fi kul li sahir wa fi safar

فيك أقول ولا أقول فيك أقول بلا فناي أن جزاك يا منهداك فوق الموت ذكرت بالنبي عند جميع القلب دقيق كما الدرى ذا الجميل يا ذا الفضيل أنت الوسيلة لذي الخدي فيك سكوني إلى المدين بلا فتون ولا غير

الرجوع مع الجموع بخير جوع ولا غداي لا كتفاتي يا زسيلاتي بعد الصلاه ما السناي

di ñuy suñ kilifa gu baax gi ñu toogal di suñ Maam a Jaara Buso ñu ko ñaal ma yàlla guddul fanam te wéral ko waaye di nuyu mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom la nekkandool fii ci Bambilor ci te jiital ci nuyoo boobu noonu ak ziar bi Baye Mbacke mi nga ne moo fi nekkal suñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér waaye jaaral suñu nuyoo ci moom mu jàll ci mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci tund yëpp nekk ci dëkk bi ak magi taalibe yeeg daayira yeeg ñu ngi leen di ziar bu baax a baax tey jii nag eh, li waraloon jot jotaay bii suñ jotaay bii tey muy bésub yëg-yëg bo xam dal euh, ak safar guñu jappala don ci wajal magal gu mag gi nga xam mom la Serigne Touba auto mu le 18 safar at mu jot nak ñoko ko daan taxawee ñu ko daan taxawee nii ci ndigalu Serigne muntaha Serigne muntaha joxe woon ndigal ci bokki talibé ku ko man nga wacc ñetti kamine fa nga nek lool nak lañ doon taxawal tay mbambi lor ci keur Serigne Touba gi ci ñu dal Serigne Mamor ak magi talibé di ñaan yalla nañ ci ndaje gërëmal Serigne bi waye lepp nak di wàccaayu magal gi magal gi nga xam ren wara a tombe 23 août incha allahu rabbi ñu ci oo mbokki taalibe yëpp sëñ Mamor nag daayira bi nga xam ne moo ko moom la àndal mooy daayira Jaarbatul Maraaxib ñoo ngi oo ñëpp ci màggal gi incha allahu rabbi ñu ngi koy waajal war a màggale fële ca bustaan ca Touba ci yoonu Daaru Rahman Euh, ci quartier bu tuddu Bustaan nekkoon quartier bo xamne Serigne Saliou moko joxone wa keur Serigne Afi Bousso euh, don quartier bo xamne ne fi ne njabootu Serigne Afi Bousso ñoo ñoo fa dëkk ñoo fa ñoo fa nekk di di fa liggéeyal Serigne Touba wa fondation Jalbatul Maraxib nak fas and ak Serigne Mamour fas fa taxawal seenu magal suñu magal di ci ëm bokku taalibe yëpp màggalu Dialbatul Maraxib nag xam nañ ko magal gi Serigne Mamour yor yor gi la koy def ndax yor gor yor yor gi la Serigne deug deug mbotu magal ci yor yor gi la ñi ñaan mbokki taalibe yëpp ku ko man ñu ngi lay oote yor yor gogo Insya Allah rabbi ci bésub magal gi ñu fas fa faa alquran jang jàng xasaayit ne ko señtu ba diglé def ay berde tamit berde yaatu defal na mbokki talibé yi magal gi ñu ci bu baaxa baax ci talibé ñu xamné kep kuy magalé na nga xamné farata mo la taxajuk na nga melni ku jëm mak melni ku jëm ci barab bo xamné mo nga gëna fonk sa ndax barab bu sel la barab bu màgg la ci l'islam waye barab bu màgg la ci ñun yoonu murit kon ñu ngi ñaan mbokki talibé Kep kuy magalé nang ko Al waajal ko ci alquran wajal ko ci xayit wajal ko ci ak selal wajal ko ci tuddu yalla moy li moy suñu suñ tay bi ginnaw buñ ko waajalee bu noppi buñ agge Tuubaa it lepp luy ab yar ak teggin ñu wone ko fa bu mat ndax nit bo ci lu bax da nga ca wara ab yar ak teggin ndax moy tax la nga bëgg yomb amin yomb kon ñoo ngi ñaan bokki talibé yi di ko tàmbale suñu euh di ci soññ bokki talibé magal ak Tuubaa inshallah allah rek buñ ci agge Eh, naan xam ne eh, eh, farata la ci ñun yoonu murid ndax Sëñ Tuubaa moom lañu moom la ñu digal ndax ba mu ba mu nekkee ci liggéey bi bu liggéey bi mat ba muy sant yàlla yamu ko ci jëmmam ndax jàpp na rek sant gi lott na ci moom mu yaatal ko ne kaay leen sant la ma yàlla kaay leen sant la ma yàlla nag képp koo xam ne dala ucc bés ne kaay la ma yàlla sant yàlla weesuwul def la la yàlla digal jàng alxuraan jàng xasida teg ca bernde yi nga xam ne moom Sëñ Tuubaa da ko digle waaye Sëñ Saliou mi nga xam ne moo fi mu ci doomi Serigne Touba dañ ci insister lol dañ insister lol ci ak cant ndax neewoon na ak cant sante yalla mom aw la a koy def way ak cant mom ay cër kay def lu ay cër di def nak moy moy bernde kon nak lol tamit ñu ci soñu mbokki talibé bu baaxa baaxa baaxa a baax baax ci li nga xamne nak moñu moy suñu walla ñun waa Dialibatoul Marakhib ñoo ngi o ñep incha allahu rabbi di len us ab bis bo xamne da dañ départ fii ci kër Serigne Touba gi mardi le 20 août inshallah lañu la ñuy départ fii ci kër Serigne Touba gi 8 heures ci suba lañu départ dañu xëy dem képp ko xamne am nga yéene and ak ñun ci magal gi bis bi man nga ñëw bindu fu ci kër señtu Touba gi wala nga oote te numéro yi may bëgg a joxe muy 77 503 94 54 wala 77 154 39 91 wala 77 388 84 29 moy yor numéro yo xamne dal daal képp koo xam ne bëgg dem ci magal gi bo ci oowee na la orienter inshallah rabbi ñu andando ñu ci ciy oo talibé taalibe wuñ kenn yor yor gi tam ñu ci ciy ootawaat di gëna insister bu baaxa baaxa baaxa baax ñun ci lañuy magal señ mamor ci lay magal mu yor yor gi wara tambali 8 huit heures jour magal kep ko xamne ne am nga yéey ànd kook ñun wara joge jóge wala fo mën joge senegal ñu ngi lay o bustaan 8 heures lañu tambal suñu yor yor ba 14 heures ñu ñaan danañ fa jang ay al ay kaami alxuraan danañ jang ay xasaayit danañ bernde ndax ñett yoy moy magal gi jàng alxuraan jang xasaayit kurel bernde ñi xamne xam ñoo jang al Quran xasaayit nekk ci kursi ak tuddu yalla loolu moy yor yor gi ñu ngi ciy oo ñëpp di ko mandal. ku ko man dal fekk ñu bustan inshallah rabbi ci yoonu daaru rahman bi ku ñew bu biir bustan rek ci jaar ci yoonu daaru rahman bi duggé ba bustan ba ci entre station bi station bi ak boulangerie bi bo auto rek ñu jël ci la inshallah rabbi señ ma ngi ñun ñu ngi rawatina waa lor ñun bokal dëkk bi ñu leen ci o ñep bayiwun kenn lool daal moy auto bi di sante bu baaxa baaxa baax señ baax sëñ Mamor di ko ñaanal yàlla ko wa rahmatullahi taala wabarakatuh. liggéeyal ko sëriñ bi lépp liggéeyal ko sëriñ bi